plateau bi yëpp di am mbégte ak kontante ci sunu retrouvaille ci émission bi di Allô Sénégal waaye di nuyu nag mboolem téléspectateur ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rek di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah ma euh, dalal ak jàmm ñu dalal Asia aussi mu ci plateau bi Asi nuyu naa la. fay naa la Aïcha naka suba si. sax ça va yaa ngi ci jàmm alhamdulilah. ñu bàyyi la nga ñëw mbokk yi nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau ak sunu invité bi nga xamante ne moo fi jot a jóge xaritu Kajoor euh, ak mbokk téléspectateurs yi di leen wax léegi léegi la nar doon ci les buzz du net ak people. dinañ ci ñëw ànd ak Asia ñu dalal Keyna mu ngi ci plateau bi namoon nañ la. billaay maa leen raw. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah i ta voix si sonn rek ci appel bi xam nga diggu xolu appel bi laa dëkk <laughs> donc moo ngi noonu maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waa appel bi Yoff laa yéen Cambérène et tout donc di nuyu nos très chers téléspectateurs yi leen xam ne moon naa leen aussi bu baax a baax a baax achat de retour tey comme tous les jeudis mm. dañuy daal di ñëw rek ci ça ne se fait pas dinañ ci ñëw ànd ak Keina mais en attendant ñu ànd ak oustaz dans la rubrique euh, religion oustaz tey thème bi lan la la ñuy waxtaanee Euh, tey nag ñu ngi fas yéene waxtaane ci planning familial la planification familiale ñu di ko wax ci arab euh, tahdidul wiladati wala tanzimul wilada espacer les naissances espacer les naissances wala limitation des naissances okay. Euh, islam daf ko détaillé kon l'islam wax na ci planification familiale lu yaatu sax yaatoo yaatu sax ah man koy def naa ci ay séminaire séminaire yoo xam ne ay boroomi xam-xam ay kàngam bind ci ay livre hmm. waaw yaatu na lool. ah nekk na mbir mu yaatu de planification familiale. Hmm. ah si. am na brin am na piqûre am na pilule. donc hmm. voilà dina am solo ñu bàyyi la ko dugg ci ci kii ci kii bi. parce que tam la boo xamante ni fi mu ne nii ah, ñi ko dàkk def ay célibataire lañu. xale yi. Mhm. boo demee ci hôpitaux yi. Mhm. xale yi ñoo fay rend di def planification familiale mais je pense que affaire la boo xamante ni du pour ñoom. Mhm. am nañu ko moom lan la ci lislaam wax. waaw non xam nga célibataire moom wax dëgg yàlla bu ñuy wax famille moom bokkagul bu planification familiale la ñu wax organiser des naissances organisation des naissances célibataire lu yoonam ci naissance lan moo ci yoonam kooku bokkagu ci di. <laughs> ma koy laaj. ah kooku duggagul ci bunt bi di kooku dañ ko ne bu dee góor la sa sa sa sa geño gii na ko takk ba mu dëgër bul yolom geño na ko takk ba mu dëgër. ah. Mm. yonent bi salaay dafa wax ne man istata'a minkumul baa'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa yéen jeunes yu góor yi ku ci am lu mu dotee am lu mu yore soxna na daal di daw gaaw takki soxna. ku ci amul lu mu takkee na na na takkoo koor ndax koor dafay wàññi désir bi nekk ci góor ak fu kàttan gi ak liy féqu ci moom daf koy wàññi ba noppi nag góor-góoru takk sa ndigg di liggéey di dajale mm-hmm. bés boo amee nag bàyyee koor ga nag dem takki soxna kooku foofu lañ ko yemloo ki nga xamante ne jigéen la kooku moom dañ ko ko ne takkal sa sa sër bi ba mu dëgër sa kumba si na dëgër <laughs> kooku lan mooy yoon ñaari yoon ñu lan mooy seen yoon ci planning familial yoon yoon da cee nekkul bu ñu koy wax moo tax ñuy wax te it nag dafay am ay chart yoo xamante ne mooy tax mu dagan wala ay charte yoo xamante ne day tax du dagan. d'accord Assi. Euh, oustaz euh, mu doon loo xamante ni aussi dafa mel ni dafa dafa récent parce que suñu euh, temps wu maam dafa mel ni amul woon wala amoon na. suñu maam yi. waaw comme amuñu woon moyen yi nga xamante ne moom la moom la am léegi. parce que am na am na xam nga yéen ngi wax pellulier. am mhm. brin yeeg mais am na sax appareil stérile. appareil stérile hmm, effectivement sax oui am na appareil boo xam ne dañ koy placé ci biir kanamu jigéen. Mm-hmm. ah bu àndee bu bu bu jaxasoo ak ak borom këram ba noppi rek appareil bi lakk lakk euh, sperme yi euh, nu ñu koy waxee ci spermatozoïde ah. al xayawaanaat al manawiya lakk leen ñu dal di dee. Mm. loolu yooyu yëpp am na mais suñu maam yi amuñu woon toutes ces possibilités la mais ñoom amoon nañu benn pexe mooy lan mooy bu xa bu bu ndaw si amee doom. ñu ñu ne ko demal sa kër yaay nga dijjali nga dijjali c'est-à-dire nàmpal sa doom ba sa doom dëgër. xam nga lan lañ doon lan lañ doon éviter lañ doon éviter ndaw si nef bu ko defee xale bi dem kër yaayam doo ko gis seet bi fi sëy si woon daaw am doom fan yële passé nga toog deux ans doo ko gis euh, mag ñi pexe boobu lañ doon def pour pour écarter ko ak boroom këram pour éviter nef. Hmm. ñoom boobu moyen la boobu moyen rek la ñu xam nga yaa ngi koy wax léegi. Hmm. dafa woon ni parce que tey kan mooy dem sëy mu am doom mu demaat këram déjà parents sax famille dañu yàkkamti sax xale yi dem sëy hmm. parce que déjà léegi waxuma ñëpp mais dëkkuwaay xat na gisatoo kuy dem sëy mu delluwaat këram ngi mu ngi am mais c'est c'est très rare hmm. c'est réalité boobu am na beneen réalité bi bokk ci loolu mooy euh, moyens yi moyens yi amatul ba nga xam ne euh, peut-être ni nga ko bëgg a doxalee noonu nga koy doxalee wala di jur di jur di jur rek di teg noonu. Mm. maintenant euh, le fait que nag ñu ñu ñëw si l'islam taxaw euh, modernité taxaw. Mm-hmm. nga xam ne bëri na ay association tey yoo xam ne ñu ngi jéem a plaider. Mm. pour soreel njur ak yooyu te duñ ci déggoo ci anam duñ ci déggoo ak diine xët-xët bi fan la nekk c'est-à-dire euh, lan lan euh, association yu war a war a mën a bàyyi diine bi tam su suñ ko su fekkee war na mën a bàyyi dara na serait resque pour ñu gis am solution déggoo am lan fan la rëkk-rëkk di nekk diine bi diine ji mhm. euh, am na lu mu jàpp am na lu mu bàyyi am na lu mu maye am na lu mu nangu loolu alquran moo ko tracé ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne euh, tazawwaju wa takaasaru fa inni mukaasirun bikum al umam yawma al qiyama yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne takk leen ci jigéen ñi ngeen multiplier wu nu mu gën a baree parce que ëllëg yowmal xiyaamati le jour du jugement dernier damay kontaan man Mouhamad ñu xeet yonent yëpp daje ak seen xeet yi man mooy taxaw di yëkkatiku sama xeet bi di ñu naan oh, xeetu Mouhamad la communauté de Mouhamad nee na ñuy def xëlëf xëlëf xëlëf xëlëf xëlëf du jamais vu nee na loolu dafa da dafa may neex te loolu mi maa ngi koy mën a amee rek ci ngeen takk ngeen ngeen ngeen ngeen multiplier mais nag euh, cela ne veut dire que euh, coûte que coûte nit ki dafa war a jur ay doom di di tegale di rangale déedéet euh, bu fekkente ne jigéen ji seetlu na ne bu amee doom moom yàlla dafa daf ko boole ci jigéen ñi nga xamante ne dañuy nef dañuy nef bu bu amee doom rek quatre cinq mois après mu amaat beneen doom xale bi du nàmp mooy xale yu loof yi nga jëlaat grossesse yaay ji du wér doom ji du wér dans ce cas islam may na la li ñuy wax tanzimul wiladati organisation des naissances ak moyens yi nga xamante ne moo tombé ak sa jamono. ok bu fekkee mën da ngay jël brin bu fekkee da ngay naan ay doom bu fekkee da ngay def appareil stérile yaa xam ni nga koy mën a defee ba organ ba ba ba espacer naissance loolu sa charia daf la koy may bu fekkee yaay ji aussi yëg na ne doom yi bu nu tegaloo dafa daf koy sonal charia may na la nga espacer ko. bu yaay ji seetloo ne chaque deux ans bu juree doom bu fekkee ci deux ans rek la yam moom yëg na ne am na am na wéradi gu muy def ci yaramam charia may na la nga espacé ko. quatre ans cinq ans. ah, ah tanzimul wilaada dafay dagan mooy organisation des naissances mais li islam di bañ mooy la limitation de naissances parce que da ngaa ragal ne moo ay moyens amul ndax yàlla nee na laa aw taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq nahnu narzuqukum wa iyyaahum yàlla ñu ne bu leen rey seen doom yi ngir ragal ak ñàkk man maa leen di wërsëgal yéen ndey yi ak bàyyi man maay wërsëgal doom yi kon loolu du du lay ci charia du loolu ci diine l'islam alors euh, oustaz man dama amoon benn question boo xam ne dina xaw a jege un peu si sa réponse bi hmm. parce que comme asiya nañ ko euh, laajte jamono suñuy maam mais est-ce que jamono yonent bi aussi amoon na et comme ni ko waxee exactement nii et que euh, euh, dañu bëgg ñu yokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam est-ce que dagan na ñuy daal di def rek li nga xam ne mooy planification familiale dagan na mm. ci ay charte bu fekkente ne Euh, ngaañ lo benn loraange am na ci njur gu tegaloo gi. Mm-hmm. am na da dagan na bu fekkente nag amul benn ngaañ boo xamante ne lii normal ci njuru doomu aadama ci njuru jigéen muy chaque deux ans mu mu mu am doom wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman arada an yutimma radaa deux chaque deux ans jigéen bu normal war na mën a am doom te du ko wàññi dara bu fekkee la dara yonent bi nee na jural ba sa nen yëpp yokk xeetam. yokk xeetam bi bu fekkente ni yëg nga ne am na ci xalal am na ci benn coono bu ci nekk ci ndey ji wala ci doom ji pas ragal euh, euh, dépense euh, maanaam fi côté côté financier waxuñu loolu de bu fekkente ne am ngeen ci lu ngeen di ragal ci wàllu wérgu yaramu ndey ji wala doom ji am nga droit nga espace ko bu fekkente ne am fa jural ba sa jërëjëf sa bëccëg yëpp tuuru quant à sa première question ci lay ci lay ci lay tëje ndax jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu ko def waaw daanañu ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na fi ay saxaabam nett lañu ne euh, euh, daanañu def al azlu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu yonent bi dem nañ mais ñu laaj lenn ci ay compagnons ñu ne wii ci naka daanañu def azlu ci jamono yonent bi salaay salaam ngir ragal suñu soxna ëmb te yonent bi xam ko te daawuñu ko tere azlu mooy lan mooy booy ànd ak sa soxna ba mu wóor la ne léegi nga nga nga yegg ca cëppaandoor ga nga nga nga sotti ndox mi ci biti. <laughs> oustaz na de. waaw loolu mooy al azlu. azlu moom ndax ñëpp mën nañ ko. ah li ma la mën a yëgal de mooy. <laughs> Hmm, boo da waaj de balaa ko. <laughs> di nga waaj kay. <laughs> loolu dara ci kajoor di nga waaj waajaat waajaat waaw waaye bu fekkente ne nag euh, nitu principe la nga te xam nga li ngay viser lu mu doon ak li ngay moytu lu mu doon yaakaar naa war nga koo mën a def li ma <laughs> de tey dama kii waaw oustaz ah yàlla baax na xanaa yàlla yàlla dimbali ko si rek hmm? jërëjëf ñu jaajëfal bu baax a baax oustaz bàyyi la rek bu fekkee am na loo ci bëgg sànni ñu ñu tëj foofu am waaw li ma ci dolli daal mooy maa ngi euh, ndokkeel la communauté Layène waaye di leen sant di leen gërëm seen euh, imam bi mhm. ak seen euh, yaakaar na mooy Dudu Maxtaar Laay limaam bi doon waxtaan démb ak seen xel seen ñoom ñëpp daal ah. seen discours yi wax dëgg ah. yàlla population bi war nañu koo dégg discours yu riis yu am solo yoo xam ne bu ko nit ñi bu ko bu ko nit ñi dégloo danañu jariñu àdduna ñu jariñu àllaaxira ñaareel ba nag may ba baaxee ñi nga jigéen ñi nga xamante ne dañu yàgg ci gis nga ñi ngi planifié wu ñu am ñoo xam ne amuñu sax ak ah. njaboot ñi nga xamante ne dañu dañu dañu yàgg ci néegu sëy te amuñu doom nanu bind aaye ji ah dégg na jël leen aji bi ak fay ngeen bind aaya ji wa walidin wa ma walada fa euh, da ngay bind rek euh, fatiha salatu ala nabi wa walidin wa ma walada wa walidin wa ma walada nga bind ko 134 fois rek def ko saafara saa bu ñuy demee ba war a ànd ku góor ki naan ci quelque guux ku jigéen ki naan ci quelque guux euh, incha allah ci ndimbalu yàlla subhanahu wa taala yàlla mën na leen a may doom boo waalidin woo maa wala am na solo ak Fatima Salatul Fatiha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax oustaz euh, nga daal di des ak ñun rek léegi léegi bu baax bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi Alassane ànd ak Asia dans la rubrique les buzz du net